marhaban wàcce bi ñu wàcce directeur hôpitalu Amadou Sakhir Mbaye bu Louga ni ki démb ci àllarba gi moom la mboolem yéeni kay xëyee ni ki tey jile le soleil nañu démb la ko président Macky Sall daa di wàcce ci boobule poste ginnaaw bu mu jotee rapport mi bàyyi ko ci ab mission bi demoon ngir lañ bëtt anam ya nga xamante ne noonee la astu soxna faato ci boobule l'hôpital ginnaaw bu mu doon jéem a mucc yéeni kaay bii nañu fanweeri fan ak benn la woon njabootam joxoon ci baaramal tuuma hôpital ba ci càgganteem laata muy porte ji plainte le soleil nañu ñu doon amal ni kii démb njiit réew mi Macky nay sakkuwaat ci Abdoulaye Diouf Sarr jóoriñ bu ñu dënk wàllum wér yaram gi ngir mu gën a bàyyi xel ci nu ñuy dalalee askan wi ci bërëb fajukaay yi te témoin quotidien ne faatu ko astu soxna mi lee nguur gi daat na ci gën a farlu jël ko très au sérieux loolee waral laata enquête judiciaire yi du yegg njiit réew mi Macky Sall daal di wàcc ci boppu hôpital régional Amadou Sakhir mbay bu Louga docteur Amadou Gueye Diouf mi ko jiite woon procureur bi itam daal di jóg soobu ci liggéey bi ginnaaw bu mu jotee ab plainte vox populi ne daan ya di maanaam sanction yi Wade ci hôpital bu Louga président Macky Sall daat nay dagg bopp directeur ba juróomi ñetti ci ay liggéeykat yene ci boobu leen hôpital police daat na leen teg loxo ni kii démb bu ñu sukkandikoo ci suñu naatangooy Vox Populi libération mel ni kuy dëggal xibaar bi nañu ci ay waxtu yu ñuy dëgmal dina bëri ay nit ñu ñu fas yéene teg loxo ndaxte l'enquête bi dafa daal di dëggal lu ñu doon jiiñ ñuy liggéeyee ci bu fajukaay boobee yaa yéene kaay source a gën a xuusa ci rapport bi ne ñu bokk na ci li ci feeñ ñàkk matt jëmale ko ci ab qualité ci wàllum paj bu ñu naroon a jagleel ndem si yàlla siidi astu soxna mi doon muccu ñàkkum càmbar ci wàllum wér-gi-yaramam di maanaam insuffisance de son diagnostic ak ñàkkum saytu gu wara daal dinañuy wàccee directeur hôpital ba et après yéeni kaayu enquête moo daal di samp laaj bu ni mel suñu naatango yi ne benn at ginnaaw bu ñu wàccee docteur Abdou Sarr ci hôpital Magatte Lô bu Linguère ginnaaw bu ñu fa nemmee ko njombe bi taxoon ay liir daal di fay lakk ba ñàkk seen i bakkan mel ni histoire bu mel noone moo dellu siwaat ak wàcce bi ñu wàccee Amadou Gueye Diouf directeur hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga ginnaaw faatuk astu soxna waaye yéeni bi mu ngi xamle ni loole daanaka amut lenn lu muy soppi ci mbir mi ndaxte dara doxut ci suñu système de santé nga xamante ne jamono ji la tembe daanaka ci bu sukuraata yéen kaay Sud Quotidien def ëpp càmbar ci wàllum wér gi yaram fii ci Sénégal ne ñu bërëbu fajukaay yi daal dinañuy ci fan yile mat na sëkk firnde ci ni ñuy taxawoo way wopp yi ci biir bërëbu fajukaay yi yéer lan ko ci biir Sud Quotidien yéen kaay dikk nañu itam ci jafe-jafe yu ñu nemmeeku ci hôpital Aristide Le Dantec mi ñu tabax fii ci Ndakaaru jàpp ko ci atum 1912 bi la jour nañu boobule bërëbu fajukaay mu ngi ci diggante taax bu magget bee xob bi nga xamante ne saa ne mu fees dell ak i ndox xat lool ay service urgence ya nga xamante ne dëppoo ak bëgg-bëgg yi luy dëgg gi kay bu ñu sukkandikoo ci bés bi le jour moo di opital hôpital la Dantec ci boppam daa feebar jamono jile ba jéggi faj fajkat yu ne ci boobu le hôpital ñoo ko xam xamle ni kii dem ba ginnaaw bu ñu doon janoo ak taskatu xibaar yi doon dellu soit itam ci ay jafe-jafe yu ñu jànkonteel ci seen wàllum liggéey waral la ñuy interpeller nguur gi ngir mu indi ci saafara dem nañu sax ba xayma la ñu soxla ci wàllum koppar ngir defaraat hôpital Aristide Le Dantec nee nañu juróom benn fukki milliards yi francs CFA dina ci mat sëkk dëggal xibaar bi ne ñu hôpital la daan daal daal feebar lool ndax jafe-jafe yi ñu fa nemmeeku moo xam ci ñàkkum courant ba ci ñàkkum ndox service néphrologie ba nga xamante ne fu mu toll nii doxatul lépp nag tersi ci ñàkkum garab di maanaam rupture de médicament li xew ci hôpital Dantec daal yéeme na lool bu ñu sukkandikoo ci yéen kaay le quotidien loolee waral médecins yi ak professeurs yi di xamle ni jafe-jafe yi tax nañu ba mënatuñu def seen liggéey